garab gële ngeen di seen. xam nga seenu leen la féete suuf. xam seenu leen la féete suuf de. la ca kaw rek ngeen di seen. ndax la ca kaw daa da koo nëbbul. ndax la ca kaw dana da koo nëbbul. moo tax ngeen janoog moom. moo tax nag ngeen janoog moom. mooy saatir si dox seen digg. mooy saatir si dox seen digg. li ñu sëriñ bi dig. li ñu sëriñ bi dig nag. bu ëllëgee bu ëllëgee. xam nga bu suñu ba tege woon. bu ci suñu ba tege woon. kon kon kenn du tabax. kenn kenn du tabax. loo am lu ne. loo am lu ne. day fab jox ko sëñ Tuubaa da ngay fab rek jox ko sëñ Tuubaa mii. waaw doo ko tabaxee mukk. waaye doo ko tabaxee mukk de. ndax buñ gisoon loola rek. ndax buñ gisoon loola rek. waaye li suñ kanam buñ ko gisoon. li suñ kanam buñ ko gisoon. lu ñu yorati. lu ñu yorati. mbedd koy gën ci ñun. mbedd koy gën ci ñun. kon dara duñ safati. kon dara dootuñu safati. moo tax ñu def yi ñu def yëpp. moo tax nag ñu def yi ñu def yëpp. kon nag yéen ñi nangoo toroxlu kon nag yéen ñii nga xam ne yéen a nangoo toroxlu fab seen lépp delloo suñu borom fab seen lépp delloo ko suñu borom Euh, gàcce moom gàcce moom du mën a ñàkk du mën a ñàkk de murid bu ne dana ko am bu ko am bu ko neexee bu ko neexee ak bu ko naqaree ak bu ko naqaree waaye gàcce bokkul waaye gàcce yi nag ñoo bokkul euh, Abdoulaye Dieng moo xam ni Abdoulaye Dieng moo xam ni Moustapha des koo topp ci ba ca këru jàmbur Moustapha dañ koo topp ba ca këru jàmbur fekk mu ubbi gaalu jàmbur fekk nag muy ubbi gaalu jàmbur kenn néew fa kenn nekku fa waaye ba mu ubbee ba yor loxoom nag waaye ba mu ubbee ba yor loxoom nag Ah, boroom kër ga doxe ko gannaaw borom kër ga nag doxe ko gannaaw ngëb ci ngëb ci ñëw nag ngëb ca loxo ba nag te ëpp ko kattan te ëpp ko kattan nag woo bokk woo bokk ya woo ay bokkam woo ay bokkam xam ngeen mooy ñëpp xam ne loolu gàcce la. xam ngeen loolu gàcce la de. am du gàcce. am du gàcce kenn joxu la ko. ubbi la ko. borom fekk la borom fekk la fa. loolu gàcce la. loolu gàcce la de. waaye daa bokk la gën dal nag. ñu dal nag ñun. waaw ah, sunu sunu gàcce ñun murid yi. sunu gàcce ñun murid yi. Hmm, li li lañ ngir sëriñ Touba. li ñu teg ngir sëriñ Touba. ñu yor la ci biir pax ma. ñu yor la nag ci biir pax ma. te defoo fa dara. Euh, suul ba mu maase. suul ba mu maase. nga xippi nag. nga xippi nag. day xéwal suñu borom ya. dajeeg nag xéwal suñu borom ya. ci juróom-benn gox yëpp. ci juróom-benn gox yëpp nag. loolu gàcce la murid yi. sëriñ bi nee na loolu gàcce la murid yi de. waaye daa bokkul nag. waaye daa bokkul nag. ndax googee. ndax googee. jooyi mbégte la. jooyi mbégte la. ji ma waxoon nag. ji ma waxoon nag. mooy jooyi gàcce. mooy jooyi gàcce nag. kon nan ko muñ rek. kon sëriñ bi nee na nañ ko muñ rek. la la la lan lanu dig. lan ñu dig daal. sallaaw bu ci ba tegewoon day sallaaw bu ci ba tegewoon kenn kenn du bëggati dara kenn dootu bëggati dara li ñuy bëgg lépp li ñuy bëgg lépp sa saatir si rek a tax saatir si rek a tax mooy li dox suñu digg ak loola li dox suñu digg ak loola waaye ñi xam dara moom waaye ñi ca xam dara ñu baree ngooy ci ñoom ñu bare ngooy ci ñoom nekkoon ñu dem bànn bi nekkoon ñu dem bànn bi waaye noo leen noo leen neexal waaye ñoo ngi leen di neexal ak di tàpp tàppal ak di tàpp tàppal ak bañ ñu gedd bañ ñu gedd wala nu xaddi wala ñu xaddi ndax loolee ñu gis ndax loolee ñu gis rek bëgg ñuy naatal ñi ñii fi def ñuy naatal ñii fi def moo leen fi baax waaye su doon loolu waaye su du woon loolu am na ñu duñu dem rek am nañu dañu dem rek duñ fi négat dara waaye duñ fi négat dara ndax moom lan gis ndax moom lañ gis moo leen gënal tey ëllëg. moo leen gënal tey ak ëllëg. kon kon nit ñi tam nañ muñ nag. kon sëriñ bi nee na ñun tam nañ muñ nag. gor soo xam ni. gor soo xam ni. bu noppaloo. bu noppaloo. bu sonnati ba faw. bu sonnati ba faw. soo see gor daal. soo see gor daal. lu mu néew néew ngor lu mu néew néew yi murid yi na ko mën a muñ na koo mën a muñ nag kon nañ góorgóorlu rek kon sëriñ bi nee bëgg ci li sëriñ bi bëgg nag bàyyi li mu bëggul bàyyi li mu bëggul te xam ne coono bi te xam ne coono waaye dara amu ci ëllëg waaye dara amu ci ëllëg de kon jërë ngeen jëfati mu bokk ko ci sëriñ bi nee na mu bokk wooyee wax ne ma nga ànd ak sëriñ Saliou wax ne mi nga ànd ak sëriñ Saliou sëriñ Saliou ñu bëgg a ñëw taxawaay bis Mmh. ñuy bëgg ñëw nag ci taxawaayu bis bii. ndax moom itam. ci firnde laa nekkoon. ci firnde la nekkoon. waaye firnde jàmm la. waaye firnde jàmm la. bi juróom-ñetti wax tegee desee tuuti. bi juróom-ñetti waxtu desee tuuti. laa soog a jàll ca wàlla la soog a jàll nag ca wàlla gëmm aslëf gëmm tuuti aslëf xam nga juróom-ñetti waxtu moom fekk na jant fenk bu yàgg juróom-ñetti waxtu moom fekk na jant fenk bu yàgg kon dara xaju fi kon dara xaju fi waaye nag waaye nag bokk na ci ñi fi jiitu woon bokk na ci ko fi jiitu si moom ñi tax mënu maa nelaw ci la bokk ñi tax mënu moo nelaw ci la bokk ndax noo jóg ngir man rek ndax dañoo jóg ngir moom rek moom ma bëggoon ma itam mu bëggoon nag moom itam jóg nag jóg nag ngir ngir ki tax nu jóg ngir man ki tax nu jóg ngir man loolu moo loolu moo moo tax mun a noppalu sëriñ bi ne loolu day moo tax mun ta noppalu borom coono yu bari yii borom coono yu bari yii noonu xañ suñu noflaay yi ñoo leen xañ seen noflaay yii ndax ku seen xel dem ci ñoom rek ndax ku seen xel dem ci ñoom rek tey as tey as aw ñam du neex yow aw ñam du neex ci yow waxuma ay nelaw waxuma la ay nelaw nag kon noo ngi sant baax tey gërëm kon sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax tey gërëm jërëjëfati jërëgeen jëfati ñu ngi daggi seen bopp ñu ngi daggi seen bopp tey daggi murid yi rek tey daggi murid yi rek ndax mu ne coono bi daal benn la sëriñ bi nee na coono bi daal benn rek la de muy fii ci àdduna muy fii ci àdduna rek waaye fee ab coono amu waaye fee daal ab coono amu fa de rawatina nag rawatina nag nun waa barab bii nun waa barab bii nga xam ne suñu kërug ëllëg la nga xam ne suñu kër suñu kërug ëllëg la muy kërug texe ga muy kërug texe ga moom topp teguñu ko ci. moom teguñu ko ci. topp gi ñu topp. topp gi ñu topp. wërsëg wi ñu fekk fi mu ne. ñu fekk. ajuñu ko ci. ajuñu ko ci. sunu sàkk. sunu sàkku. loo gis mu am loo tax loo gis amuñu ko rek. loo gis amuñu ko rek. ñëpp noo melu ni yéen. ñëpp dañoo melut ni yéen rek. waaye ñëpp maase woon. waaye bu ñëpp maase woon. ci li Sëriñ Tuubaa bëgg. ci li Sëriñ Tuubaa bëgg. kon na way taxañee dundee. kon na way taxañee di dundee. noonu lay dund la ñuy dundee ñun waa Touba. mooy kenn du taal cin. muy kenn du taal cin. wuute yi sax wuute yi sax du aw. wuute sax duñu aw. kenn du ubbi dara. kenn du wuti dara. loo bëgg rek. loo bëgg rek. mu fekk la fa nga nekk mu fekk la fa nga nekk. loo gis ñu ñàkk ko. ñu ñi fi nekk ñi fi nekk. te defuñu ni sëriñ ni ni yéen. te defuñu ni yéen. nga xam ne defuñu li sëriñ bëgg. nga def xam ne defuñu li sëriñ bi bëgg. bàyyiwul li ñuy tere. bàyyiwul li ñuy tere ñoom dañu leen xañ lu ne. ñooñu rek ñooñu xañ lu ne. waaye li wërsëg bi rëy rëy rek. waaye li wërsëg bi rëy rëy rek. lu ko ëpp milliards yoon nga fa. lu ko ëpp milliards yoon nga fa. te gën ko te gën ko. te bu defoon bu neen lool rek. te lool rek. loolaa loo xamem. nga xam loolu la yow. si kon jërë ngeen def rek. kon sëriñ bi nee na jërë ngeen def rek. ñu ñaan su ba li sëriñ bëgg lépp rek. ba li nu mën caa rek. nu mën caa nekk rek. mën na ci ko yoon wooyee. nekk ci kaw yoon wooyee rek. jërë ngeen def. sëriñ bi nee na jërë ngeen def. barke ñu ngi ñaan bi. barkeel njaboot yi barkeel njaboot yi xaaral ñu suñu jëmi bopp yi xaaral ñu suñu jëmi bopp yi gën noo sàmm rek gën noo sàmm rek ci baatum ndigal ci baatum ndigal jërëjëf jërëjëf sëriñ bi nee na jërëjëf jëfati kon kon maa ngi dellu soxna yi kon kon ngeen dellu ñaan doon ngeen déggal ñu ngi ñaan soo borom jàkkal la fi lool jàkkal la fi lool